info news ci seen seen ASID TV saay su nekk ñu fàttali leen ngeen abonné ci chaîne bi te activé cloche de notification boobee ngeen di seen ci seen jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen dalal euh, saay su nekk duñ koy defee rek tey ñu seet ci kenn ku mag ñu koy wax dërëm ñëw seet ci ko bëgg waxtaan ak moom tey ci mbirum actualité àdduna dërëm ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay Mbaye Mbassou di la dalal tamit euh, tubaarkàlla macha allah nuyu internet yi nga xamante ni sopp say soppe lañ di la seetaan ak samay soppe di leen ñaanal jàmm. bu baax di wax ne maanaam kan mooy dërëm. dërëm euh, benn yaay Fall la boo xamante ne bu xeeblu lool nekk ci milieu bi rek di bay waaram bëgg Sénégal yëpp kontaan. mais dërëm mbirum animation la ñu bëggoon ñu waxtaan si tuuti ndaxte jamono bi gis nañ ne. Euh, animation bindoo na noo xamante ne surtout ci réseaux sociaux yi bindoo na noo xamante ne jamono yi ñuy yëngu si mbirum animation bëri na lool lool lool animation kuy animé dëgg-dëgg naka nga war a mel ci kanamu public bi. ci euh, kanam public bi il faut nga def formation. am foo jaar waaye léegi ku yëngu rek ni anima euh, animateur la ku yëngut ni animatrice la waaye nag courant du mu sondel courant. xam nga sondeel day leeral waaye bu courant ñëwee rek dina xam ni lépp du dëgg la parce que loo doo doonul taalibeem doo mën a doon sëriñam il faut nga jàng ko sama genre gi tëbuñu tëb nekk animatrice dañ ko galéré depuis ma am 12 ans maa ngi ci cabion podium yi maa ngi ci formation euh, rajo communautaire yi. kon bu baax jaar naa ci rajo communautaire. jaar naa ci cabillon rock show bouche oreille yi. Euh, xam euh, xam lu tax animation yi du benn. ku nekk li nga jox sa public rek loolu la lay delloo ci mu ci côté yëpp loo miinul dañ ca wax lu ëpp ndax euh, macha allah ñu ngi ciy bëgg a yàgg te kenn mësagul dégg lu diw def wala lu diw wax dafa fekk boobu nga jàng ko ba mokk ndax loo jàngu rek boo ko taree def safaan ba. mais mbirum série tamit dafa mel ni jaar nga si dafa mel ni dañ la mos a gis si Yacine ak Dial. Mhm. comme genre benn ma Yacine ak Dial ba ngay xeex ak. ñaareel bi noonu dafa mel ni kon yow est-ce jaaroo si mbirum série yooyu nag. bu baax parce que art bi dama ciy juddu mhm. xam nga loo juddu jàng ko bëggal ko sa bopp mu nekk sa passion. Mhm. tey jii ba ma ba ma woyloo woon su ma woyee nga nga ni moom la su ma feccee fecc naa bale. dama daan fecc bale dama def tour théâtral euh, def na damay taasu. lépp loo xamante ni tey laal na aar lu ma ci fëggoon léegi nga xam ni lépp dëgg la ndax loo jàngul di ma la wax rek loo nekkul taalibeem doo mën a nekk sëriñam mhm. noonu la fa demee. mais yéen comme yéen ñi nga xamante ne da nekk maanaam ci télévision yi. di def ay plateau di def animation bi yéenu yéen naka ngeen koy dundeek doomu aadama yi boo leen génnee seen milieu bi daal di dem naka ngeen koy dundee nit ñi parce que léeg ñi nga xam ne dañu nekk si plateau télé yi dafa am foo xam ne dañ leen fay teg yéen naka ngeen koy dundee. parce que mbubb la. tey jii bu ma xasoon a passé buntu TFM fii nekkatul dërëm ñaari personnage laa yor mhm. sama jëmmi bopp ak dërëm dërëm TFM la nekk buntu TFM la yam mhm. tey boo dajee woon ak man ci fa ma dëkk mhm. wala ci mbedd danga naan du kii mooy def émission ba du ci solin wi du ci waxan wi damay muuru man pour nit gis sama yaram sax problème la tout le temps damay muuru parce que dama ko tàmm parce que dafa am fu ma jaar euh, euh, veuve laa muur boobu nag moo ma topp ba damay muur ba léegi mhm. mais su ma ñëwee fii dërëm moo fi nekk mhm. dërëm moo nekk biir TFM mhm. parce que boo jaaxasee ñaari personnages yi rek mooy indi problème que boo génnee yow boo génnee sa jëmm bopp ngay doxee mais boo duggee fii dërëm moo fi nekk dërëm ak sama tur bopp du benn mais xam nga loolu lu tax ma laaj la ko léeg dañuy wax ne jigéen yi nekk ci télé yi di def animation muy liggéey si mbirum presse ak lépp ak ñi nga xam ne ay woykat lañ nekk ci mhm. mbir showbiz bi di way léeg du ñu am jotu ngir mën a toppatoo seen bopp en seen diggante ak seen njaboot ndax yow di nga am jot boobu comme ni ngay nekk chaque jour ci télé bi di liggéey di liggéey di nga am mhm. jotu ngir yar say njaboot ah am nañ jot bi bu baax baax parce que télé du tout le temps nga fay nekk heure nga fi am sa heure su jotee nga ñibbi sa njaboot nga jox benn temps bi sa liggéey nga jox benn temps sa njaboot man am naa jotu yar doom damay togg damay fóot mm-hmm. man dërëm aw mbindaan mm-hmm. utuma ko damay fóot damay togg damay bale mm-hmm. soxlawuma ko mais su fekkee yow da nga jël sa temps yëpp nga consacré ko si aar bi ah doo tal sa njabo doo tal sa jëkkër mais day am mais yooyu yëpp si éducation de base bi la rek parce que luñ la yarewul soo màggee doo ko mën a def tey suñ ma yaru woon ci fóot yaruñu ma ci togg ak ku ma mën a doon du ma ko def suñ ma yaree nag ci fóot ak togg bu ma nekkoon premier daam du Sénégal sax dinaa fóot dinaa togg parce que ci yar bi la lu ma tàmm la. Mm-hmm. am ñoo xam ne tey jii du ñu ay artiste togg ñu yàqu ñu kenn mënalu leen dara ñu ngi seen biir kër yi lëjël seen jëkkër wit mm-hmm. mais tëram gis nañu tamit maanaam jamono bi comme yow maanaam en tant que mère de famille nga mhm. jamono bi gis nañ benn phénomène boo xamante ne daanaka bëri na fi te jóg na mhm. muy li jëm si mbirum euh, immigration clandestine bi nga xamante ne gis nañ ni commencé na bëri lool mhm. te yow am nga xale bu góor am nga xale bu jigéen comme ñeneen ni ñu ko amee yow tey lool en tant que mère de famille yow ban jàngal nga si am yàkkamti seen wërsëg rek ak tamit jamono bi métti fii ñu toog la métti fa nu jëmit dafa crise mondiale la ñu wax ñàkk xam mu ngi ci de un ak yaakaar ni ku dem tekki tekki yàlla la du nit nit mën naa toog fii tekki nit mën naa dem te bañ a tekki ñi dem ñu ci bari tekkiwuñu ku fi jógee Europe boo ñëwee fii Europe bi fii lañ la koy weccee te ki lay wecci génnut Grand Yoff comme ñàkk xam la ak tamit famille bi li ñuy wax gouvernement gouvernement gouvernement ñun la sa yaay sa papa am na famille yoo xam ne boo fa tekkul duñ la tekkil dara ñu ci bari loolu moo leen di poussé ñu def naka sudul noonu xaru gi ñu wax xaru dëgg la parce que leer nga ni fii géej gi yow munoo ndox amoo maami ay maami ajoor ajoor nga am nga dugg ci ndox mi kay yaa raylu sa bopp loolu xaru la te xaru nag tekki yàlla la du nit nit mënta def moo mu tekki yàlla mooy décider ni ñuy wax rek wërsëg ceenu bato la buy ñëw dara du ko téye buy demee dara mënu koo téye comme yàlla nañu yàlla fekk si fi ñu nekk ñun ñëpp ñu doyloo fi ñu nekk mm-hmm. euh, ba ba ba li nga xamante ni moom la ñuy fekk ci géej gi di ci xaru mu fekk si ñu fii te duñu dem mm-hmm. parce que tubaarkàlla macha allah dem ci géej gi mm-hmm. taxut nga taxul nga tekki tekki mbir yàlla la déggoo ma de am na ñu nekk Europe sonn fa lool di fanaan ci mbedd di lekk lang fa gàcce moo leen teree ñibbisi parce que amuñu lu ñu wuti joon woon bàyyi fii seen wërsëg dem di ko wuti fu mu nekkul nañ ci waxtaan ak nit ñi nag yee leen di leen wax ne tukki mhm. taxul nga tekki mhm. tukki taxul nga tekki rim boobu na ko gars yi dugal fii seen bopp yi waaye gërëm tukki taxul nga tekki mhm. est-ce que état bi ak parents yi ñan ñoo ci gën a am responsabilité bu gën a parce que gis nañ ci kon benn xale boo xam ne presque bi nga am 14 ans. moom daanaka papam moo yëkkati xaalis jox bu ñu pour mu dem si géej gi. xale boobu fukki at ak ñeent rek la am. kooku nag du ay état parent bi ak état bi ñan ñoo ci gën a am responsabilité. parent bi. parce que état bi yoonam nekkul foofu état mooy ñun. Mm-hmm. état mooy yaay état mooy papa. ñun ñooy état bi ñun ñoo war a defaraat suñu comportement ak li ñu gëm ci suñu bopp yi que ni ku sa doom demul moodu moodu di teg liggéey fa ñu jëm sax amu fa. liggéey fa ñu jëm la gën a méttee amu fa buñ fa demoon nii dañuy galérer c'est que yenn yi sax man fuite de responsabilité laa tuddee. Mm. parce que parent bi jël ay million def pour doomam dem na dem rek na dem. léegi bu dematee am na ñu ci bari doo ko gàddu moom mu nekk foofu xamoo lu muy dund sa doom di tumaranke loolu tamit nañ ci xoolaat bu baax ak euh, tamit yenn kër yoo xamante ni boo fa nekkee mm-hmm. defoo dindiwoo chaque jour ñu wax la lu la metti mm-hmm. ñu ci bari moo leen di pousser ñuy xaru parce que yenn xaru la daal si ni ma ko mën ci ñi ma ko war a wax mm-hmm. nañu toog te xam ne dëkk bi y a pas de sot da ngay gis koo xam ne li ñuy bañ fii li ñuy bañ fii lañuy ñuy defi fële fële dañuy jaay ay tàngal màtt man damay gis ñoo xam ne tàngal jinjeer bi lañuy yor si kopp di wër di jaay ci yeneen réew te bu dee fii duñ ko fi nangu wala ñuy wër di nekk ci restaurant yi di raxas ay bool walla ñuy surveiller ay mag te fii ñu ko fi mm. li nga bañ sa réew nag boo ko defee ci réewum li ngay def réewum jàmm tekki boo ko defee ci sa réew mi tekki mm-hmm. y a pas de sous-métier mais ñi nga yi nga xam ne napp jën ñu mhm. si bëri xam nga dañuy wax ne maanaam géej bi amatul amatul amatul jën mhm. te gis nañ ne daanaka am na ay accord de pêche yoo ne état bi signé na ko te loolu nekk si géej bi tamit daanaka mhm. dañuy gën a bëgg di dem bitim réew duñ fi bëgg di toog ndax te géej bu sàmbara amatul dara dërëm kooku pour mu toog est-ce que dina yomb déedéet nañu toog te koo xamante ne yow nga xam sa àdduna waaye la lu mu sàmbara sàmbara yàlla gémmiñ gu mu xar sànni ca pepp hmm. bu ñu toogee lu mu sambara sambara dinañ am ndawal gu ñu yóbbu seen kër dinañ am nañu fajee seeni soxla ak lu état mën a def suñu njëriñ dong la état bëgg te bateau yooyu bu ñëwul ñoom it état duñu mën a faj suñu yenn soxla yi il faut que ñu bàyyi waa bateau yi di di napp ñoom it ñuy napp pour faj seen soxla affaire bi da xam nu man nu ma ko gisee doylu la ak yaakaar yàlla foo doyloo toog yaakaar yàlla yàlla fekk Info News seen saay su nekk ñu fàttali leen ngeen abonné ci chaîne bi te activé cloche de notification boobee ngeen di seen ci seen